waxtaanee ndaw ñi ndax umpale ni Sénégal fukki nit yoo jël juróom-ñaari ay ndaw lañu ci kaw loolu dinañu waxtaanee wàllum xëy wàllum kaaraange ak wàllum jàmm waxtaan bi ñu ngi ko tënk ci ñaar ñaari poñ bi ci njëkk mooy xëyu ndaw ñi bi ci topp mooy jafe-jafe ak yitte askan wi rawatina ndaw ñi ci lu mel ni jàng lu mel ni formation lu mel ni way xarala yu yees yi ak gën a boole jigéen ñi akin ak caada xam nañu ban jéego la son excellence monsieur le monsieur le président de la république Macky Sall mu muy def ci wàllum euh, financement yi ak formation yi ànd ceeg lu mel ni 3FPT ak DER waaye loolu yëpp tamit taxul mbir yi sotti comme ni ñu ko bëggee ndax yenn ci ndaw ñi xamuñu yenn yoon yi ngir jaar ba am ci ay financement ndax ba léegi ñu ngi jànkonte ak ay jafe-jafe ci wàllum xëy ci loolu it seetlu nañu koomu réew mi dafa gën a jublu ci wàllum économie informelle maanaam bërëbu liggéeyukaay yi nga xam ne nii euh, kenn xamuñu leen ndax binduwuñu bañ leen mën a ràññee ci loolu tamit xëy gu njëkk gi si fii ci senegal juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent yoo jël téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ak juróom-benn yi ci mbirum secteur informel la boo ko tëkkaleeg bi nga xam ne téeméer boo jël ñetti ñetti poñ dong la la taxawee ci mbirum secteur formel donte ni taxawaayu ndaw ñi ci secteur informel bi comme ni ñu ko jàngatee sànq léegi nii euh, taxaw na takku na waaye tamit teewul ñu ngi rencontré ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe saa su ne ci askan wi. loolu moo waral nag ñu waxtaanee tey ji xëyum ndaw ñi waaye tamit li ko waral gis nañ ni mooy ñàkk xam yoon yi nga xam ni ndaw ñi fa lañu war a jaar ngir mën a jot ci financement yooyu rawatina yi leen nguur gi jagleel waaye tamit ñàkk xam yoon yi ñuy jaar ngir mën a taxawal seen entreprise bu bopp maanaam entrepreneuriat walla auto emploi Euh, ràññee nañu yeneen jafe-jafe ci yeneen i yitte askan wi lu ci mel ni jàppandal ci financement ci am bërëbu liggéeyukaay yu ànd ak jamono ak ni ñu war a jëlee askan wi ci bërëbu liggéeyukaay yi ginnaaw jàngat yooyu yëpp jàpp nañu li ñu war a def mooy ñu sensibiliser ndaw ñi rawatina tamit ndaw ñi ak jigéen ñi sensibiliser borom entreprise yi. ngir ñu dem bindu ji ndax ndax ñu mën leen a ràññee ñu jàppale leen taxawu leen waaye tamit gunge leen ngir ñun ñëpp ñu mën a bokk njariñ loolu waaye nag senegal fu mu tollu tey jii nii ñun jeunesse AFP ak jeunesse benn Bokk Yaakaar gis nañ ni fi mu toll ci saa si tembe yàlla dafa def ni suñu président Macky Sall ci nguuram la yàlla dogalee senegal am xéwal yu mel ni pétrole ak gaz di fi ball ci suñu réew ci anam yoo xam ne nii wax dëgg neex yàlla yu yaatu macha allah kon nag ñu wax ko rek bëgg bañ bañ bañ bëgg bëgg bañ lu am yàlla def na ko suñu président moom la yàlla xéwalal loolu buñ ci bëggee nag jëriñu ndax taxawaayu ndaw dafa war a ràññeeku ci réewam ba tax na may soññu ñun ak samay mbokki ndaw ñi dem war a taxaw jug daw jël suñu matukaay yu mat sëkk nag wane suñu taxawaay ci jëmale kanam suñu réew ngir mën a gàttandu koom gu bees googu ak ay formation yu xarañ ci mbirum pétrole ak gaz lu ko mooy Sénégal dina jéggaani ay liggéey wala jéggaani ay liggéeykat ci anam yooyu la pour tënk te tëj suñu kàddu yi ñu wax ni rekk di fàttali suñu kàddu maam Cheikh Tidiane Al Amin si génération bu nekk ak mission wam soit mu matal ko soit mu wute ko te jàpp naan tey jeunesse bi ma fi gis ndaw yi ma fi gis ak seen engagement seen taxawaay ak seen détermination pare nañ pour mottali mission boobu sur ce je maa ngi leen di gërëm di leen sant te di ñaan yàlla vive AFP vive Moustapha Niass vive la progressisme